asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu man la Insa Mbacké di leen ziar bu baax a baax ci weer wu tëdd bi di wax ne coordination bu réew mi Touba ñëpp ñoo daje woon tey euh, bu ñu nee nag moom góor ñi jigéen ñi ndaw ñi mag ñi cadre yi magi parti bi ñëpp a ngi ci euh, ginnaaw bu ñu amee waxtaan wu yaatu. ci loo xam ne dañ ko seetlu ab diir bu ñuy wax Mohamed Cissé di ko doxale ci parti bi loo xam ne méngoowul ak doxalinu parti sarti parti bi di ko teg jël ay kàddu di ko teg ci njiitul parti bi ba tey euh, doxalinu parti bi nanguwul loolu ginnaaw bu ñu amee waxtaan wu yaatu xay na sax mënoon naa gën a yaatu ndax waaye ku nekk xam na koor gi xataay bi ak ci kanam tuuti yaakaar naa ñu bari xam nañ ne Cheikh Mouhamadou Mountakha dañuy dundal weeru koor ci xasida te yaakaar naa ne ñun ñëpp ñu ci bari danañ fa bëgg a teew wala ñu toog ci seeni saal di ko teewlu moo tax xëy na ni mu war a yaatoo ñëpp sax mënuñu woo mbooloo bi yëpp waaye nag responsable yi yëpp teew nañ ginnaaw bu ñu amee waxtaan wu yaatu <clears throat> ñu jël dogal bis ni ki tey ajjuma 31 mars 2023 dàq Mouhamed Cissé ci parti réew mi loolu moo doonoon li nga xam ne mooy moo sabab woote bi sabab waxtaan wi ndax doxalinam ak jëfinam ak li mu teg ci kilifa parti bi méngoowul ak sarti parti bi kon daal information bi mooy ne ñëpp xam ne bis ni ji tey coordination réew mi Touba dàq nañu Mouhamed Cissé bokkatul ci parti réew mi kon ñi ngi sant ñi fi teew ñëpp di ci doole rek nañu nañu nañu gën a farlu ci recensement yi nga xam ne commencé woon nañ ko président Idrissa Seck joxe woon ci ndigal ñu tàmbali woon ko na ci ñëpp gën a taxaw gën cee farlu loolu moo doonoon woote bi moo doonoon moo warloon jotaay bi ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu